asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam gannaaw buñ sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di wax ne ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may nañu fekke nañu daaw te yàlla mayaat ñu ñu fekkee ren loolu sant yàlla amul lu dul ñu santee ko yàlla di ñaan yàlla ñu fekkee ay déwéni déwén yu bëri bëri bëri bëri si barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si barki cheikhul xadim borom bés bi jiital ci nuyu bi nag mooy alu beytu rasul yi nga xam ne ne ñoo fi toog di jiital ci nuyu bi ki nga xam ne ne moo tax ñu ñëw fii ci màggalu tuubaab yi moom mooy sabablu ñëw bi fii di suñu kilifa di suñu mag di suñu nijaay di suñu sëriñ Chérif Cheikh Cheybani wal Moustapha mu yàgg fii lool nag ànd ak wér loolu lañuy ñaan yàlla di nuyu ki nga xam ne moom la doon présenté léegi mooy Chérif Saad boo bële di nuyu Cheikh euh, Ahmed euh, di nuyu Hamoud di nuyu Hadrami di nuyu Sidaati pour di nuyu Chérif Abba Mële di présenté rek muy ñëw lii pour présentation la rek donc di ñaan yàlla daal yàlla may ñu ñu fekkee ay déwéni déwén yu bëri parce que lii alhamdulilah sant yàlla la waaye nag sëñ bi moom amul tànku gannaaw tànku kanam rek li am te ci kanam rek la jëm nag incha allah ki nga xam ne ne nag dama doon présenté rek ki nga xam ne nag moo war a jël kaddu bi di borom jàmm ak jamono di shérif Cheikh Cheybani wul Moustapha moom la xaar ñu jox ko kaddu bi mu ñaanal nit ñi mu waxtaan ak nit ñi yàlla nee na yonent bi nee na والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للذين آمنوا هدى وشفاء yàlla may wér di jaay rasulilah kontaan nañ yàlla ñu yàgg fekk fii di jaay rasulilah Fallou Fallou waaw ma ne Fallou dafa sañ dafa sañ ci këram bi Fallou Fallou sama rak ma ngi waaw waaw waaw léegi mu ne wut bitel mi ndeysaan wallaahi wallaahi indi butéel jama butéel bismillahi arrahmani arrahim qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal almu'minun wa ma min dabbatin fi lardi illa ala allahi risquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustawda'uha kullun fi kitabin mubin alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya ba'da gannaaw ba ñu sant yàlla jullit seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu ñëpp ci ku nekk ci turam ak santam chérif eh, yi chérif Adran présenté na leen moom moo ubbi eh, may présenté ki nga xam ne ki moo waral suñu suñu jeetaay bi kii suma xarit la suma lépp la yàlla ci boppam moo ñu boole sëñ baaraloo mii ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam ndax loo gis loo gis ci àdduna dafa am sabab jeetaay bi yëpp macha allah moom mooy sabab bi ne ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak gudd fan yàggal ko ci kanamu njaboot bi fekk nañu fii suma xarit Abdou juuf kële toog Cheikh Cheikh Samba Ba man Cheikh Samba Ba laa koy wax euh, mu nekk sëriñ mu nekk élimaan bu baax jeetaay bi yëpp ñu ngi nii suñu maam Cheikh ay dumu mu ngi ne la toog dumu lëb na donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen xamal ne àdduna lii rek la àdduna teraanga moo fi nekk ak lu baax te gis ngeen bés bii lenn dinaa leen ko wax ni jullit bu ci sonn doo ko rëccu jullit bu ci def alalam doo ko rëccu jullit bu mu jaral nga bañ nelaw doo ko rëccu man fu ma toog ma wax ko nee naa leen ne ñaari bés yi ñoo ma jaral ma miiraa suma bopp mooy ñaari bés yi bésu bésu bi sallallahu alayhi wa ak bés Sëñ Tuubaa ñaari bés yi bépp jullit bu ci sonn doo ko rëccu loo ci def ren déwén da nga mën lu ko ëpp man dama ko seet ci man moo tax nag nañu sant yàlla bu ñu yàlla mayoo xol ñu ñëpp ñu ñëw ñëw ci bésu sëñ Touba mi ki nga xam ne mooy xaadimu rasul sëñ Touba xaadimu rasul tuddewu ko boppam de Cheikh Ahmadou Bamba dafa dugg xalwa rasulillahi feeñu ko jaxaran mu ne ko inta xaadimi yow yaay sama jëwriñ moo tax nag ku ñëw ci bésam nga sonn ci bu soobee yàlla doo ko rëccu yàlla nañ ko fekk ay màggal màggal sët euh, yonent yu toll nii ñëw sa kër yombul dégg nga ñu ngi jógee ci ci sëtam moom Cheikh Amadou Bamba di sëñ Abdoul Ahad doom Cheikh Mouhamadul Mourtada suma xarit ki nga xam ne ki euh, ci man lay gàmmoo ci moom laay màggale comme la ngay def yow yaa ngi nii yow it ci man ngay gàmmoo maa ngi nii ñëw ci yow ci bésu màggal bi moo tax nag eh, ànd bi yàlla na sax ànd bi yàlla ne dem ba mu nekk ndono ñu koy bàyyi suñu doomaati doom waaw yax yàlla am na ko te mun na ko te moom moo ne ud'uunii astajib lakum ñaan leen ma may leen wa idaa sa'alaka ibaadii annii fa innii qariibun ujiibu da'wata daa'i idaa da'aani xam nga yàlla mbiram dafa doy waar yàlla dafa maandu lu tax yàlla maandu xam nga mënoon na wax mu mu bañ a wax ci fin bi ci kaw bu ngeen ma ñaanee loolu la wax ci fin aaya bi ci kaw bu ngeen ma ñaanee waaw boo gisee yàlla wax loolu yàlla ci boppam moo bay sabab alquran bi lu mu rëy yëpp mi ngi nii ku la wax na ñaan amul xanaa dañ la ñaanal ayat shifa lu muy tekki pour ku feebar ayat lotf ku bëgg yëkkatiku ayat nasr ku bëgg bayre ayatul fatax ku bëgg ñu ubbite li ubbite ci àdduna li yëpp lu ko war lu tax yàlla indi ko pour ñun doomi aadama yi la mubtilaatil asxaar lu tax yàlla indi ko donc liggéey am na bu liggéey amul woon yàlla yàlla yàlla du indi mubtilaatil asxaar li yàq liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey nañu ko ba mu fasu keroog la ko law rabbil falaq law rabbin naasi wàcc moo tax alquran lépp mu ngi ci biir mu des nag doomi aadama bi nga geestu ko wala nga bañ ko geestu mais ñi ngi ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bara loolu yaa xam ni nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ñi ngi ñaan yàlla ki nga xam ne mooy xalifa général bi fii Cheikh Cheikh Mountakha Bachir ñi ngi ñaan yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot ki nit ku baax la ko bëgg ahlul bayt kuy def alalam ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale bu gën a tuuti bu egsee ci moom ñu ne ko kii sëtu yonent la mu yëkkati li mu am yëpp mu jox la kooku jara ñaanal yàlla foo ko gis li nga njëkk a gis mooy bëñ yi moo tax nag nit ku baax noonu lay mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tàggu ko ci abdallahi mooy sa papa wala aminatu mooy sa yaay lu mu ko wax wa innaka la ala xuluqin azim waaw moo tax nag doomi aadama boo gisee ci moom xulóog rek amal ci moom yaakaar waaw ndax kilifa am na lu muy ñàngalee rek kenn du ko ñeme am na nu muy fasay kanam kenn du ko jege waaye bu fekkee ne ubbi na rek duñ koy ñeme moom nag yàlla may na ko loolu mbooleem nag kuy setu Cheikh Ahmadou Bamba wala taalibeem wala cheikham wala nga bokk ak moom yaa xam fu nga bokkee ak moom ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk yokk leen ba ñu ci seen bés bii yal leen yàlla yokk yokk Touba yokk mbooleem jullit ñi wun si Touba ci Cheikh Ahmadou Bamba ci bésam bi yàlla yokk leen ba ñoom ñëpp ñu yëg ko te yàlla seede na ko ku mu jaal nga déplacé wu doo ko rëccu te moom rek mooy lem nag boo ko mosee benn yoon loo ko bay ñu ngi ñaan yàlla nag eh, télévision bi yàlla na ko yàlla yokk eh, def nañ ko daaw alhamdulilah rabbil alamin li suma jarbaat bi wax sant nañ yàlla fekkaat déwén fekkaat ren def nañ ko nañu sant yàlla yàlla nañu yàlla may fekke ko déwén ndax àdduna moom nii rek la lu baax rek ak teraanga lu fi waay am da ngay jóge fii nga bàyyi ko fii waaw c'est bon nag nañu jiital ci suñu compte bu am solo bi lan mooy compte bi gën am solo mooy compte bàmmeel nañu xam ne compte àdduna bi fii la koy bàyyi de or yi fii la koy bàyyi de magasin yi fii lañu koy bàyyi de kër yu rafet fii la ñu koy bàyyi de waaye compte bàmmeel moom rek ngay def loo xam ne li boo fi jógee nga fekk sa kanam moo tax nag compte bàmmeel bi nañ ci liggéey nañ ci taxaw ñu xam ne ne mujj bi yëpp foofu la ak foo mun a jaar. da ngay jaar ci bunt bi el mawtu baabum wa kullu naasin daaxiluhu fa yaa layta chariya baadal baabi mat daaro daara daar na ay min an amilta bi ma yarda al ilaahu wa in xaalafta fa naaru maa lil mar i si walil firdawsi manzilatan wa in hafaw hafatan fa rabbu gafaaru donc xam na loo xam ne li fi la koy bay fii la ko fekk te du fi jóge mooy kenn du suñu boroom moo ñu bind te du du tawat suñu boroom du nelaw suñu boroom du du du du téele suñu boroom du jeexal magasin yi kuy jaante ak moom koo gis mu ragal jaante ak yàlla ci jëf rek sa gëm yàlla sa si iman des na ndax magasin yàlla kun fayakun kenn mënu ko jeexal ñun ñooy jeex ñu dem fekk magasin yi benn yëngatuwul te ku gën ki la gën a mën a joxe rek gën la am ci magasin yooyu ngeen baal ma ak wasalaamualeykum yàlla nañu ko defaat déwén fekk ko te tal ko jërë ngeen jëf wasalaam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 خلاف ما الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالطف بنا فيما تشاء يا رب فالطف بنا فيما تشاء يا رب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ah léegi eh, eh, si ay béy rek. du si ay béy rek. waaw. dama